<laughs> donc man je pense que la situation actuelle d'abord damay wax paradoxe dafa am. Euh, conseil constitutionnel moom la ñu dénk benn prérogative yoo xam ne ci pouvoir présidentiel la bokk. Mm-hmm. mooy mu ceytul ñu di ñu xoolal suñu constitution réglemente règlement yi loi et réglement yi. ndax ñu ngi koy respecté ci wàllu constitution. président aussi am na ci ay wàllu mais dafa am yoo xamante da kaa jël dénk ko conseil constitutionnel ci wàllu élection. Mm-hmm. man je pense bien que. comme ñun ñëpp si foofu la ñuy jublu di déposer mu njëkk a génne benn vague ni ñii validé nañu. Mhm. beneen vague bi mooy leen 48 heures pour ñu def ay réclamation ba tey ñoo ngi si ay loi ñi nga xamante ni aussi dañoo déposer ay recours loi moo leen ko may. ñu déposer ay recours. Mhm. maintenant c' est au conseil de voir est ce que ñii li ñu déposer c' est légitime si c' est mu xool li loi bi wax ak li constitution bi wax mu doxal ko. Mhm. parce que dëkk noonu lay doxee. mais paradoxe bi fan la nekk mooy ñun ñëpp gis nañu Sénégal on a un sérieux problème de séparation de pouvoir. De pouvoir. Mmh. c'est pas un respect envers les Sénégalais en tant qu'acteurs politiques ngeen naan président wañaan loxo conseil constitutionnel qu'on se dise la vérité du respect. parce que ñun ñoo nekk ay sénégalais nangu nañu ni président dafa war a am une mainmise si judiciaire bi. c'est vrai que dafa am paradoxe quoi. mais cest dire que cest dire que il faut qu'on qu'on puisse respecter les sénégalais. beneen bi mooy ñun on souffre en tant que sénégalais. Mm. il y a des urgences qui sont là. la vie ne n'est pas que politique. Mm-hmm. yow da nga am kóolute ba dem ci conseil bi déposer ce dossier. ñu rëkkale la ñu may la ay marge de manœuvre nga def ko. donc leneen moo si am soit ki nga wóolu ma jox ko say dossier nga bàyyi ko mu doxal. sinon processus bi avant ñuy déposer ngay waroon baata ci processus bi leer. c'est-à-dire il faudrait que ñun aussi qu'on puisse respecter nos Sénégalais nos concitoyens. et ça c'est important parce que des acteurs politiques qui demandent au président de façon officielle. de tordre la mais au conseil constitutionnel. pour reprendre parce que uniquement ñoom. ñoom jàlluñu quoi parce que uniquement ñoom jàlluñu. oui l'intérêt et en 2019 si on avait procédé de la sorte fan est-ce que fan dinañ am ah. élection. oui c'est ça. loolu mooy problème cest à man damaa bëgg nos acteurs politiques ñu am respect envers les sénégalais. Mhm. xam nga ñëw ne carrément man sama bopp kese laa tal parce que yenn yi genre intérêt crypto personnel la. bien sûr. c'est tout yow gis nga. parce que lu nekkoon na fi ci réew mi. oui soo leen ñu dajaloo bind leen. président de la république mi duñ ko wax euh, euh, mbëkk mi. nit ñi di dee waxuñu leneen am na fi gaz yi ah fi ay nit musuñu bind ni na nga lijjanti kaaw total dara intéressé wu leen lu dul mën naa bokk rek c'est ça quoi le reste c'est pas et loolu c'est lamentable en fait mm. parce que man damaa jàpp aujourd'hui quoi qu'on puisse dire ñi dem 21 yi nga xam ñoo dem wala ñi nar a dem lu mu bon bon am na kenn koo si bokkal vision quand su fekkee ni sa intérêt bopp rek sa intérêt bopp taxul li ngay jug war nga mën a gis ni kii li muy proposé maanaam moom ñoo bokk gis-gis fan lañ mën a nga dem ànd ak moom. mais comme en 2019. oui c' est ça mais problème bi mooy éliminé nañ ma donc élection yi warul am. warul am dañ ko dañ ko dañ koy pousse. wax ji mooy loolu. wax ji mooy ñemewuñu génne waxu pouse élection ñu fi créer loo xam te ni mënta nekk mooy revoir le parrainage. man je pense aujourd'hui euh, côté média aussi foog ngeen dimbali ñu ci cest à mooy le débat doit être un débat programmatique. gis nga. à l'heure actuelle c'est important et c'est crucial Sénégalais bi comme dafa war a tànn candidat mu xam lan lay proposer. Mhm. fan la ko teg nan la koy defee. et ça c'est capital aussi. loolu moom dañuy xaar waa conseil constitutionnel. parce que man je pense que aujourd'hui bu ñu ci nekkee ci débat bi conseil conseil constitutionnel bu xasee ba wax comme moo si mën dara après. Ah, jeex na bu xasee ba génne la vingt listam ne ñi ñooy dem élection jeex na. kenn mënut si dara donc je pense que ni il faudrait qu'on puisse respecter davantage les Sénégalais respecter aussi suñu charte ndeyu réew comme loolu la wax